yëglekaay li ñu xëyee tey ñu ànd ceeg euh, Cheikh Diop Cheikh ñu tàmbali ko ak l'observateur ñu door ak euh, l'observateur l'observateur xëy na fësal pàccu yaa jëm ci lu soxal wàllu euh, politique fii ci réew bu Sénégal rawatina élection législative yi nga xam ne nag moom la ñu dëkkmal fii ci réew mi dans les secrets des listes la rek daal di dippee lu ni mel Macky Sall wi nga xam ne amoon annoncé nañu ko tête de liste moom Karim Meïssa Wade mi ngi ci ñetteel bi position soxla naata ak itam grande offensive bu sàmm sa kàddu ak itam takku wàllu Sénégal. jëm ci département yi euh, fii ci réew mi ak itam euh, fi nga xam ne nag euh, moom moo di ci diaspora bi moom Woré Sarr itam ñu ngi ko annoncé fa ca ki xam ne moom moo di ci Abdoulaye Sylla yéen ci ay révélation jëm ci père investi ca Géejawaay Lat Diop ak itam ki nga xam ne moom moo di Cheikh Oumar Anne ci li nga xam ne nag moom moo di liste nationale bi lu ni mel mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di l'observateur ak yeneen di ponk yoo xamante ni dikkaat na ci bu baax a baax kaawu Abdoulaye Diouf Sarr itam mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di yéenekaay wi benn yenn ponk la yoo xamante ni nag daal nañ koy xaatim ñu waxtaanee ba tey kenn koo xamante ni xamee nañu ko jëm ci wàllu politique fii ci réew bu Sénégal moom Diégui jóob bi nga xam ne dañu ne dañu koy wër moom ci boppam daal nay weddi kaddu yooyu ba mu set ci aw vidéo boo xamante ni daal dina koy amal la mu xamle moom moo au commissaire bu dig bi ni ki euh, démb euh, day itam di xam ne rek lépp lu ñuy sàkku ci moom daanaka du daw génn réew mi euh, fenn ma nga ca diwaan ca kër eh, Ndiaylo aw reportage yoo xamante ni nag def nañu ko ca terme suite eh, ci wakkaam ñeenti at eh, ginnaaw boobee nag nga xam ne génne woon nañu lu toll ci juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ci ak njaboot ñuy toltalaan diggu bëccëg reportage dikkaat na ci ñeenti at gannaaw bi famille yooye ana lan la ñu doon ak itam seen i ay jafe-jafe ba tey enquête boo xamante ni agence nationale bu statistique ak itam démographie di na koy def euh, jëm ci rapport wu mujj wu am solo wala boog bu doy waar boo xamante ni nag amal na ko ci ñàkkum xëy euh, fii ci réew bu Sénégal soxnaa tax mu koo liir ci li nga xam ne euh, moom moo di l' observateur l' observateur dikkaat ba tey ci sàccum li nga xam ne moom moo di carburant bi dugg nañu ci mafia yi nga xam ne moom moo doon amal lu ni mel ay milliards yoo xamante ni daal nañ koy ñàkk jëm ci wàllug pétrolier lu ni mel mi ngi ci li nga xam ne nag moom moo di page 7 bu l' observateur l' itam ci lu soxal wàllu football attaque des Lions Boulaye Dia ak itam retour ak itam li nga xam ne nag moom moo di jafe-jafe yi si Cissé moom sélectionneur bu équipe nationale bu Sénégal loolu lépp ñu mën ko liir ci li nga xam ne moom moo di l'observateur ñaar fukki dërëm ci rond point wala boog ci li nga xam ne moom moo di kiosque yi ginnaaw l'observateur beneen ab yéenekaay bu ñuy yër mu di. Ah, enquête Cheikh. enquête di kaat bu baax a baax ci législative atum 2024 contestation générale rek daal di dippee lu ni mel ci nataal wi ñu gis ci ki nga xam ne moom moo di njiit bu Pastef moom Ousmane Sonko président Macky Sall ak itam Amadou Ba ba sax ki nga xam ne moom moo di Barthélémy Dias page 3 jàpp 4. bu enquête moom moo rek daal di xëy fësal lu ni mel moom Guy Marius Sagna itam mi nga xam ne jot nañu ko fitnaal ca bu tëggoo nataalam mi ngi ci li nga xam ne moom moo di bile yéenekaay jëm ci agression boobee nga xam ne amal nañu ko ci ak jëmmam. ñu xool le quotidien le bu baax a baax ci intercoalition bu opposition bi mu mel ni itam ce la rek daal di dippe lu ni Ba s'en moom la daal di xëy fësal mi ngi ci li nga xam ne moom moo di page onze bu li nga xam ne nag moom moo di. Euh, Euh, le quotidien le quotidien dikkaat ba tey euh, ci li nga xam ne nag euh, moom moo di jàngoroy cancer xam nga ne ni ki tey benn fan ci weeru octobre li nga xam ne moom moo di octobre rose daal nañ koy lancé lépp jëm ci wàllu sensibilisation ak leneen ci li nga xam ne nag moom moo di tawat gile comme ni nga ko defee soxna naata ak loole nga takk ak ñun ñëpp cher merci le soleil le soleil national dikkaat bu baax a baax ci scrutin législatif bu 17 novembre atum 2024 jàppal lu ci ñeent fukk ak juróom ci ay liste yoo xamante ni nag mi ngi ci table direction générale de euh, élections lu mel mi ngi ci li nga xam ne moom moo di euh, le soleil national. libération douane ak Coris banque ñoom itam daanaka ak ñàkk déggoo woo xamante ni moom la ñu nemmeeku euh, ci seen biir wala boo ko aw féewaloo boo ko déggee mu di bras de fer jëm ci lu toll ci 630 virgule 702 milliards de francs CFA yéen ci ay ponk yoo xamante ni dikkaat nañu ci bu baax a baax ñu des ci wàllu koppar maanaam financement yi nga xam ne itam DER mi ngi jàppal ne euh, moom euh, ki nga xam ne moom moo di euh, Aïda Mbodj mi ngi ci tànku ñi nga xam ne ñoom ñoo fayagul nee na ñoo ñee faw ñu fay ngir rek ñu mën a financé waat ñeneen ci ñoo xamante ni bëgg nañoo demal seen ak bopp. ñu jàll ci tribune. di kat bu baax a baax ci li nga xam ne nag moo di déclaration wi ñu amal jëm ci situation bu finance publique bi fii ci réew bu Sénégal Sénégal en ruine xaw loole nag la rek daal di yëkkati moom Elimani jëwriñ ji waaye jàppal ne représentant weddi lu ni mel ba mu set du samay kàddu yéen kaay bi moom moo rek daal di xëy xaatime nu ni mel soxna Naata. Walf Quotidien Walf Quotidien bu baax a baax ci dëdd liste jëm ci li nga xam ne nag moom moo di législative yi vers un règlement de compte politique la rek daal di dippee lu ni mel gis nañ ci ñenn ñoo xamante ni xàmmee nañu leen jëm ci wàllu politique. Euh, les échos les bu baax a ci lu soxal wàllu politique intercoalition de l' opposition Amadou Ba fay euh, défection mu mel ni lu ni mel tey fësal euh, takku wallu ak itam sàmm sa kàddu euh, fond bloc maanaam ak euh, déggoo boo xamante ni nag moom la ñu nat ci seen biis page cinq bu li nga xam ne itam moom moo di les écoles rek daal di xëy fësal page 4 itam dikkaat na ak itam lu doy la nga xam ne moom moo am ca réew bu Belgique ak doom réew bu Sénégal wi nga xam ne moom moo ci rek daal di ñàkk bakkenam dañ ci dikkaat Euh, ci li nga xam ne nag euh, moom moo di euh, ñaareelu pàcc wi daañu wax an nan la Sindia Dia daal di génnee àddina soronata bés bi le jour bés bi le jour di ba tey ci tête de bu takk wàllu Sénégal Macky en jeu la rek daal di xëy fësal page 6 bu li nga xam ne moom moo di bés bi le jour moom moo ci rek daal di xëy. ñu jàll ci laas. ennemi d'hier ami d'aujourd'hui la rek daal di dippe lu nu mel boo ko déggee pexe yu antuwul la moo mel ni nag ña nekkoon ay noon démb tey jile ñoom ñoo doon ay xarit. ñu xool Vox euh, Macky Sonko le second round rek daal di dippee lu ni mel euh, mu mel ni nag euh, mu ngi ci li nga xam ne moom moo di Vox Pop Vox Pop itam ak itam ki lee nga xam ne daal di nay jéexal ci mission wi nga xam ne moom la ñu ko dénkoon moom Babacar Diagne mu mel ni itam ni ki démb yem fan fanweeri fan ci weeru septembre la rek daal di amal li nga xam ne moom moo di jeexitaluk mandaawam mandat boobee nga xam ne appoon nañu ko ci biir rek juróom benni at soxna naata ci boppal Sénégal. le 2024 bu ab confrontation diggante Macky ak itam Sonko Barth ak itam Amadou Ba en perspective la rek daal di xëy fësal lu ni mel ñoom ñëpp seen nataal euh, mi ngi ci boobu la yéen i kaay. Sud Quotidien ba tey exactement ci législative yi mu soxal itam euh, confrontation bu intercoalition euh, de l' opposition liste au scrutin du 17 novembre la rek daal di xëy fësal les de tous les possibles lu ni mel mi ngi ci maanaam lu ci ne mënees naa am ci élection yi nga xam ne nag moom naata mu soxal euh, pàcc wu njëkk wi hmm. yéen kaay euh, xëy euh, fësal record ñàkkul ne ci ñaareelu pàcc wi hmm. daañu ko am baaxee lu soxal wàllu tàggat yaram ñi nga xam ne ñoom ñoo ñuy teewlu lan lañ fas yéene wax législative yi rek Cheikh mën ngeen ñu l'observateur mën ngeen ñu l'observateur journaux yëpp ci lañ xëyee daanaka Cheikh taxaw ci journal bu groupe Futur Média merci beaucoup Cheikh ci kanam incha allah